arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi Samba Lawbe Samba Lawbe Samba Lawbe ak Ama Samba Lawbe ko sëkkatal taxaw na Samba Lawbe ñu woon ginnaaw Bébé moo jàkkaarloo ak ñun demee nañu Ama Samba Lawbe bébé Ama Samba Lawbe ak bébé Ama Samba Lawbe bébé Ama Samba Lawbe doo la ñu daje bébé Ama takk na ko Samba Lawbe rasu rëcc Samba Lawbe lu mu def nii ba bàyyi bébé mi ngi dóor Samba Lawbe ngay Bébé Ama ak Samba Lawbe Samba Lawbe ngi dóor Bébé Ama fayu dóor fayu Samba Lawbe ngi téyante Samba Lawbe Bébé Ama Samba Lawbe ak Bébé Ama jàppante nañu ñoom ngi téyante Samba Laobé ak Bébé Ama ees Bébé Ama door lee kuubu dal ñu ngi téyante Bébé Ama Samba Laobé Samba ak Bébé Ama Samba Laobé Bébé Ama ñu ngi téyante Samba Laobé fàq na ko fàq na ko bu fàq na ko delloo ko mbaar ko na ko longu caxabal mu jéggi Samba Laobé bi laa takk na ko waaye lu mu def bébé Ama taf na ko da koy caxabal. ëñ na ko tëgg na ko mboot mu bañ daan. na ko lan moo xew. lan moo daan na ko. nañu déglu arbitre yi. Samba daan na ko. sambaloo be daan na na ko jëli bi rëy na. sambaloo Laobé daan na Bébé Ama. bërëkkat la. Ah,